diggil xalifa bi drapeau bi ñëw feetu si waale ne mooy trafic bu mag bi nga xam ne moo jógee ba Pologne moo toj Pologne tojati sax laay wax tojati ndax moom moo ubbi carte te bu ubbee carte bi ñun ñu nekk ci ginnaaw doon ay taalibe bi nii rek lañ war